طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها طول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مبكي جلتي دار البر والإرشاد ak Daarul Birr TV noo ngi dellu si waat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo di def weeru koor wu nekk ñun ak sunuy partenaires yoo xam ne ay sénégalais lañ ak étranger ñu nekk bitim réew ñu yëkkati seen alal di ko dimbalee ñi nga xamante ni dañoo woor muy iftaar décentralisé bi nga xam ni dañu koy déparé ci Dakar di ko jeexalee ci dëkku àll yi di xool les villages démunis ak ñi nga xamante ni nit ñu néew kàttan yi nit ñu néew doole ñu dimbali leen lépp nag mi ngi aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ñu ko waxal yonent bi kaana ajwada nnaas wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadan yonent bi day nekkoon na koo xamante ni wax dëgg yàlla moo gën a tabe ci nit ñi waaye bu weeru koor ñëwee lay nekk ku gën a tabe kon nag ñu ngi tàmbalee tey nga xamante ni mooy ñetteelu fan ci koor gi incha allah ñoo ngi fàttali mbokk yëpp nag ñëpp ñu ci doon def seen loxo lu ñu mën yokk ñu yokk ko ndax bu ngeen gisee mbooloo yi nii xam naa ni li ñu yore ak nit ñi moom ëpp na leen dépassé na leen waaye nag dépassé wul yàlla kon ñu ngi sàkku ci ñëpp incha allah tey jii dinañu libéré deux cent cinquante kit deux cent cinquante kit mooy saaku yoo xamante ni ceeb lay def ànd ak diwlin ak suukar pour ñu jox ko nit ñi képp koo xamante ni nag jugal na ci alalam jarul mu naan oustaz ñaanal leen ma wala na ma nit ñi ñaanal yàlla subhanahu wa taala mooy borom boo xamante ne loo def rek dana la ko defal wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah borom bi nee na lépp lu ngeen def ci lu baax da ko fekk fa kanamu borom bi subhanahu wa taala kon ñu ngi fàttali mbokk yëpp liggéey bi nga xamante ne daarul birri moo ci taxaw ak ñi nga xamante ne ñooy jàppalanteeg moom am na ci ay nit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla suñu déggee nag ñu tudd leen dafa am cause bu tax ñu tudd leen ñoom sax bëgguñu ko dafa am suñu benn mbokk boo xamante ne bu baax la bu ñuy wax Muxtaar Jàllo wax dëgg yàlla dafa def participation bu rëy te chaque année mu def ko waaye buggur ko ñun nag ñun ñoo choisir rek ne nañu ko def ndax moom wax dëgg yàlla indil nañu 10 tonnes ceeb ak loo xamante ni yi ci topp yëpp diwlin ak suukar ak yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp kenn ku ci def ki def dërëm ba ki def lu ëpp 100 millions it ñoom ñoo yem ndax yàlla xam na wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain kon ñu ngi